mu jëmaat ci combat bu doy waar. waaw làmb la làmb la da ci waajaat nekkaat ci rek moom mooy xale. giri grand homme la moom moo war a ñëw def li ko war bula nit ñi bëggee am na ci loo xamante ne doo ci xaar kenn te yaakaar naa loolu du kenn du ko ko wax. xam na li ko war. di ko ñaanal yàlla gën koo suturaal ba mu dellusiwaat à 100 pour cent. Babacar Modou Lo ñëw daan ama comme ni nga ko waxee dellusiwaat daanaat booy ñaan. waaw loolu làmb la rek ama làmb moo làmb moo tëleen noonu rek moom dana waroon dante loolu la yàlla dogal mais di encouragé di boo ñaari encouragé am da la rek mhm. li ci kanam moo dàq insha allah li ci mm. mais Pokola dugg na ci Liss Ndiago waaw di ko ñaanal ndam ba sama bi moom lu tax mu ñeme moom ah Pokola lu tax mu ñeme yaam daa ñeme papam ay maamam ñeme foog mu ñeme mais pourquoi là man combat bi mu jibe dañ koy dóor muy gën a ñëw ci kaw nit ci non wérul wérul de poko xana wérul de mooy dafa kër gi xanaa déglu ma wax poko mbaam poko ñun ñëpp lay jeexal ah wérul de barke sëñ Tuubaa wérul mu ne gën a dof fop mu ngi jëm si combat nag moom lis ñaar dina wax ay fer lañ rek lamb rek moo leen boole nanga fair play no à la violence loolu laa dem lu leen sànni ñoom ñaar ñëpp Mhm. waaw mhm. Jacob tamit nekk fa yéen ñëpp ngeen di ay xale na ci biir kër gi waaw Jacob it mu ngi ci yoonam moom jël moom moom nag Albouri la jël moom ko kër gi moom gën a bëgg xeex Jacob ak ni mu sérieux ni mu kii ki nga xam moom ñu xeex xeex naa ko kon yow boo ma dee combat yàlla nga feebar pare a ñëpp ñëpp nekk ci jàmm bu yow boo doonee cent pour cent da ngay xeex làmb ji yëpp Jacob xeex rek la bëgg moo moom moom wérul moom wérul waaw wérul mais yow yaa xam nga leen say fa famille ngeen mais boo xoolee Kër Fallaye nga gis Pokola gis Babacar gis euh, euh, ki nga xam ne moom mooy euh, Jacob loolu ñu nekk si ginnaaw Ama. waaw mu mel ni kon seen maam dafa mel ni. Mhm. macha allah daal. Mhm. relève fu lamb am na ca kër ga. waaw am na fa am na fa ma Jacob da daan ñëw ci écrit bi bu ñëwee si saako ne ko génnal demal jàngi say leçon. mu mhm. doon booy bu ndaw. mais ba mu fippoo dafa jékki-jékki rek fippu ne day bëri far force bu daan dugg si dañ koy dàq école. Pokola moom gars yi gëmuñu ni woon sax mun na doon mbër ndax yoroon na bind bi mais gëmu ko woon. Mhm. bu ñëwaan day dem topp ay lonkoom ànd ak booy séeréer yi ñëw fa ma naan ko yow del ñëw entrainement naa ma waaye Zia bàyyi ma ñun dañ daan ñëw 4 mhm. heures. zil xottiloo ñu ay carton. 16 heures waaw 16 heures zil xottiloo ñu ay carton 17 heures 17 heures waaw 17 ñu dugg école saal. mën nañ faa nekk ba vingt heures. Mhm. di liggéey mais da nga daan xam ni booy yi mooy loolu noonu te boobu xam nga boobu la gënoon metti mais ñu jékki-jékki rek gëm ko. gëm aussi itam bañ ko gëmee tamit boo leen xoolee da ngay xam ni ñii kat ku ci liggéey dangay ngay da ngay da ngay prouver ngay bokk. boo gisoon ñuy def performance. waaw damay xam ni war na ndax fiñ bokk la ko mhm, fiñ bokk c'est normal ñu def performance. am na solo. Mhm. Jimmy seen ndax euh, ñoom en tant que euh, euh, donte. mbir boo maanaam doomu jur rek est doy na est-ce que boo liggéeyu est-ce que di nga mën a def dara parce que boo xoolee ci derrière Ama nga gis Pokola di Sakko Babacar macha allah catuwuñ leen mais ni relève am na ci famille bi sàkkantuma laay kiliba waaw boo xoolee ñoom lu ñuy dund la sax mhm. yi ñoo ci boyal xel mais lutte simple la. waaw poids léger poids léger da ci daan ñëw di ci. Sakko lu ma lu ma ko fekk lu simple bëri na de. ba maar ak mm-hmm. yéen. ah simple bëri na de simple waaw. Mm-hmm. Eh, Sénégal gi. Mm-hmm. léegi la dem ba ci biir rek xaw a. tegi daanaka simple bi nii mais soo ko simple da doon ñëw def ay performance yu am solo. waaw boobu mu ngi mu ngi xees gënoon kii nii. waaw xawoon jël la mais def na ay performance yu baax bu dee Pogola nag man moom xam naa duma mën a wax ci moom lu bëri ndax sama mbër la moom. Pogo waaw Pogola man moom mooy sama mbër la moom wax dëgg. Pogola moom ndax moom ko am day neex. waaw xam waaw day day day neexal daal. vraiment lambam de lambam de jàmbaar la waaye am na adversaire bu toy waaye mooy Liss Ndiago grand sal mhm. yow li ma lay laaj mooy xam nga leen seen euh, zil moom yéen a bëre ngeen mais bu ma leen